waa gars yi moom ñi ngi def seen liggéey quoi euh, maanaam xam nga dëkk bi Sénégal tey dañu toll foo xamante ni bëri na violence et tout waa euh, ba tax na policiers yi ñoom ñi ngi def seen liggéey mais benn instant que ni nu ñuy nu nu askan bi ni nekkee si prison bi ñëpp ñu ngi si teg seen bët surtout état euh, mu nekk mu nekk nekkin boo xam ne xaw na doy waar quoi waaw lu xaw doy waar que ni. gars yi dund ñu dund bu baax quoi parce que ay ay jaamu yàlla lañ ay doomu aadama lañ yoo xamante ni euh, peut-être nekku seen sago moo leen fa yóbbu mais aussi tam ñu nekkal leen fa nekkin bu baax quoi. léegi est-ce que est-ce que est-ce que mën nañ jàpp ne peut nekk ku nekk ak li la fa yóbbu quoi peut-être am na ñoo xamante ni maa tey moo leen fa yóbbu am na ñoo xamante ni aussi tamit euh, par accident la nii am na ñoo xam ne defuñu dara teew ñu ngi si biir kaso bi. Hmm. yow déjà comportement bi nga xam ne da ngay gis policier yi di ko am parfois envers euh, la société wala envers li nga xam ne moo di askan bi yow naka nga koy jàngate waaw loolu moom teguñu ko fenn quoi parce que policiers yi ñoom benn tenue la nii rek bu ñuy sol xam nga nit ñi respecté nañ leen quoi ñoom tamit dañu war a respecté doomu aadama yi parce que euh, ñoom ñooñu ñu aar mais euh, gis nañ ni policier Sénégal yi moom ñoom maa tey lañ nekkee ñoom tamit parce que ñoom lu leen neex la ñuy doxee ak doomu aadama yi. parce que ñun dañ leen fi teg pour ñu pour li nga xamante ne ñoom ñoo ñuy aar mais defuñu ko ñoom dañuy bunu xatal doomu aadama yi dañuy gis sax même buñ la ramassé sax da am problème problème bu rëy ngay am parce que dañ ay mbéj lu nekk moo siy fekk parce que ay cas yu bëri yooyu ki kii nañ ko fi gis gis nañ ko fi police boo xam ne bu la jàppee moom lu mu am droit mu yóbbu la euh, poste ba waaw mais duñ ko def fa la ñuy nekk di la dóor ak di la def yoo xamante ni doo comprendre quoi te ñoom. au plus part lu ñuy liggéeyal mooy seen poche policier policier Sénégal ñu si bëri loolu la liggéey seen poche la ñuy liggéeyal. est-ce que da nga jàpp ne peut-être tey ci formation bi wala seen condition de vie moo demee noonu ñuy teel a mer di teel a sañ ah nag ah ku nekk li ngay dund quoi nekkul policier yëpp sax ñoo koy def mais daf si am ñoo xam ne seen xol yi ñoo ndaw peut-être nag mu nekk seen formation yi. peut-être mu am mu nekk si ñoo xam ne seen xol moo mel noonu dañuy soxor loolu dafa am am na nit ñoo xam ne moom dañuy soxor léegi loo dénk rek pour jeexal. waaw lu ma leen di dénk mooy que ni euh, état laay wax mu xoolaat mu xoolaat doomu aadama yi nan nan lañ nekkee si prison parce que métti na trop gars yi ñu ngi dee si prison bi man su doon sama sago tey ku feebar si prison bi dinañ la boole garde boo xam ne dinañ la yóbbu hôpital mu garde la fa ba ni ngay wéree ba ni ngay wéree ñu delloo la si prison bi quoi man loolu laay dénk état quoi parce que métti na trop quoi ay doomu aadama lañ gars yi dañ leen war gestu gëstu jàppale leen bu baax a baax. waaw waaw rappeur la euh, sama turu rappeur sax waxuma la ko Sipion la waaw maa ngi dëkk si koñ bi fii quoi incha allahu rabi nañ pare pare benn son boo xam ne pour pour pour ñoom lañ koy defal. ah wax fa dëgg yàlla moom boroom càggee ak yi son nañ trop trop trop trop trop trop trop trop trop trop tey jii dëkk bi yaa ma gën a xam jeunes yu ci bari liggéeyuñu nga xam nga comprendre te monsieur le président notre excellent Macky Sall lu mu bëgg na jeunes yi liggéey donc donc kon foofu ñu xaw a benn affaire bi nga xamante ni. policiers yi nañ mën a comprendre seen rakk yi seen rakk yi tamit comme mën a comprendre policiers yi. lan nga jàpp ne moo tax tey cordon bi jàllul entre policier ak ñi nga xam ne yëngatu ci cag-cag wala watee fa. waaye benn copain mënul xëy 9h di ko daw ñu fay ko 2000 nga jàpp ko yow policier mu nar la fayaat 2000 yi Fall loolu day metti Fall dañoo sonn barki alxuraan gars yi dañoo sonn sonn sonn sonn sonn foog foog ñu dawalal ñu yërmande sur le faux sax ñoom ñu ne léegi lu wees dinañu def benn loi. kep ku kep ku yor moto bu amul kayit yaa ngi comprendre chaque mois ñëwal nga fay temps bo fay temps jox la ben kayit bi nga xamanteni na la mëna permettre ci mois bobu nga circuler wat mois bu jeexaatee nga dem fay temps joxat la kayit bi nga xamanteni nga mëna circuler nice bu loolu amul tamit gaay yi dañuy sonn yow lan nga jàpp mo waral parfois buñ tegee nit loxo yow ko ci commissariat muy ñak bakanam ci anam bo xam ne kenn du xam ah sa <laughs> way loolu nak xeyna peut-être sa way ah ci luma ah, xeyna peut-être buñ dañ ñen ñi dañ lay poser question boo leen tondo bu mam tondo reewande ñoom it police yi dañ ci gis sen bop ñay ya, comprendre Sénégal dal sa way mu ngi ni rek ah loolu mom mënuma ci sori quoi. parce que pourquoi policier bo waxe mom day gaaw a mer day gaaw a sañ bu la jàppee ramas da lay weex da lay affaire ah parce que mom formation mo formation ma dess rek ndax yow nit ki sa formation bu am nga form lu ñu nane formation formé nañ la normalement mam mii bu ma la rombé né la policier bi yow sa nangam tanu li sa way do ci gis sa bop fi cité bi éduqué rek do ci gis sa bop Mhm. loo gis comme solution rek. Ah, solution bi mooy que ñun ñun ñun ñun civil yi ñu xam ne policiers yi suñuy ndijaay lañ suñuy papa lañ suñuy frère lañ suñuy lépp leen xam nga ñu ñu respecté leen ndax ñoom bu dul loolu sax ñoom ñoo ñuy protéger ñoom it tamit ñu dawalal ñu yërmande. tur bi. maa ngi tudd Papa Ali Faye. waaw naka nga gisee bavure policière yi nga xam ne de dañ koy noté ci commissariat yi ak euh, police. waa avant tout dama bëggoon euh, teg baram ci benn point xam nga frère. ak réew buñ ko bokkee dafa am nu réew mi war a doxee ndax bu ñu nee état de droit ek ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi yoru suñu wàllum kaaraange nekk les forces de l'ordre ñoom en premier lieu dañoo war a xam seen devoir ñun population bi nga xam ne ñun la ñuy aar ñun ñu xam suñu devoir xam suñuy droit autant pour moi c'est-à-dire que maanaam force de l'ordre yi en premier lieu ñoo war a xam seen devoir ñun population bi ñu xam suñuy droit mais réew mi boo depuis un certain temps dafa nekk ci situation boo xam ni mën nañu wax ci olof dafa salfaañoo maanaam réew mi si boppam moo jaxasoo lu tax mu jaxasoo mooy population bi xamuñu seen droit force de l'ordre yi xamuñu seen devoir loola waral bo setlo leg leg policier yi di yor yenn actes yu violents population bi aussi am benn arrogance bu ñuy waxee policier ndax booy waxee policier wala ngay wax ak gendarme dafa war a am kàllaama booy waxeek moom da nga ko war a jox cër joo xam ni moom dana xam ni kat kii xam na droit am te it xam na ni ñun duñ fee nekk pour ñoom ñoom it war nañu am benn kàllaama bu ñuy waxee population bi ba nga xam ne population du ñu war a mën a réagir yenn réaction yu négative yi de telle sorte que boo xoolee loolu yow da ngay jàpp ni yow maanaam ñii kat du ñu gis ni maanaam dama leen di néewal doole ndax naa la xamal mbir bëri na réew yu tàq ak réew yu yëngu yu bëri yoo xam ni kenn yëngalu ko kenn taalu ko ku dul force de l'ordre ak population bi barki Sëriñ Bamba Sénégal loolu mooy suñu problème en fait li ñu war a lijjanti bokk na ci bavure policière yii ma lay wax. ndax boo jëlee nit indi ko si commissariat en premier li nga war a def mooy dalal xelam teg ko ci salle d'accueil bi mu ñëw nga toog dalal xelam waaye jël nit premier wax bi ngay wax rek mooy saaga na ko nay baa dugal nga ko kuu mais kenn du doxalee noonu force de l'ordre aar nit ñi moo tax ñu teg leen fii mais pas di tiital nit ñi mais fii tey am na ñoo xam ni mais bu ñu gisee policier premier chose bu ñuy def mooy di ñuy tiit xam nga loolu loolu moom loolu moom moom moom mooy mooy problème am na ci àddina maanaam yow boo gisee policier au contraire wala nga gis gendarme yow sax xel dafa war a dal danga war a kontaan xam ni kat ki yor sama kaaraanga yegg si na waaye nga gis policier yow li ngay njëkk a xalaat mooy daw ak tiit nga xam ne réew moom y'a problème. est-ce peut tey ci formation bi la formation bu ñu leen di euh, jagtal. surtout ça surtout ça man je pense que ni gars yi est-ce que sax nañu ma baal ndax. tamit bëgguma di dugg ci domaine boo xam ne maîtriser wu ma ko bu baax waaye ci sama xel bu gàtt man dama yaakaar ni gars yi nekkuñ est-ce que nekkuñ di leen defal formation accélérée parce que bu njëkkaan bu njëkkaan dafa doon am benn genre familiarisation entre la police et la population waaye tey jii loolu amatul te aussi am na benn aussi benn benn benn benn benn benn point aussi bu may bu may dut baaraam mooy population bi min nañu policier xeetu min goo xam ne policier ragalatuñu policier Maman, cherché wuñ sax pour nga ragal mais respecté tuñu policier te policiers yi ñoo liggéey loolee ñenn ci ñom duma ma duma duma du wax tamit ni ñëpp la mais une majeure partie des forces de l'ordre liggéey nañu lo xamni ni population bi tuñu len lu waral loolu moy la majeure partie duggu nañ ci lo xamni ni du sen wareef moy walum corruption manam nit dalay japp ci circulation bi maanaam di jéem a waxtaan ak yow di jéem a dut baaraam nga jéem a am loo ko graissé ni ko booy di waxee nga am loo dut ci suuf mooy moto yi muy oto muy karapit muy njage njaay ah muy minicar yi ak yeneen ak yeneen et cetera et cetera. est-ce peut-être seen condition de euh, moo ko moo demee nii. état ci boppam suñu gouvernement moo war a gëstu suñu force de l'ordre yi surtout la police et la gendarmerie Fall da dugg ci yenn police yenn commissariat. ak yenn gendarmerie sa xool dafay jeex ci condition yi nga xam ni moom la gendarmerie ak policiers yi nekkee seen toilette yi normalul commissariat yi seen toilette yi normalul je le dis haut et fort te li may wax ñoom xam nañ ko bu baax gendarmerie yi seen toilette yi baaxul amuñu vestiaire te loolu dafa jot on en deux mille vingt et Sénégal danga nga war a dugg ci commissariat mu nekk un luxe nga dugg ci gendarmerie mu nekk un luxe maanaam ñu am ay vestiaire am ay bibliothèque yi nga xamni manam autant pour moi xol une bibliothèque sax mais manam ay casier yo xamni fa a des casiers. Il faut ci vestiaire yi sangu ba paré tej seen i seen i placard seen tenue solaat seen moom mooy moom tenue civile mais comme dans les pays occidentaux ou bien dans certains pays qui sont qui sont développés ici en Afrique mais lutar Sénégal on n'entend que des milliards mon frère on n'entend que des milliards mais milliards yoy nañu jëriñ

C'est-à-dire que les Occidentaux, à travers les films, nous avons comment ils sont développés. Je ne vais pas parler sans mon avocat mais Sénégal il y a problème problèmes. buñ la que si la la parquet avocat tribunal aussi c'est un problème il faut que nous ko mais ñu nous

Une journée ouverte une journée de sensibilisation une communication xam nga ba nga entente entre les forces de l'ordre et la population c'est-à-dire que nous avons dans chaque région région bu département bu commune bu maire ba fa day commissaire nous, ñu ben représentant du ministère de l'intérieur les notables quartiers mon frère avec les présidents des AIC nous organiser chaque fin du mois ay jotaay ci parce qu'il le faut hein, et il est temps il le faut et il est temps Nous organiser ay journées de sensibilisation tous les 15 jours ou bien tous les fins du mois avec les jeunes avec les présidents d'Aïsé, avec les notables de quartier avec un représentant du ministère de l'Intérieur avec les commissaires avec les maires et je fort avec les conseils municipaux faut que nous parlions du Wachtan. ñu xamal jeunesse bi ak population bi quel est le rôle des forces de l'ordre c'est-à-dire la police et la gendarmerie lan mooy seen role essayé dégg xamal aussi force de l'ordre yi ñoom it ban taxawaay la ñu war a taxawoo population bi ñuy waxtaan ku nekk génne li nga xam ne moo nekk sa xel ak sa xol bu ko defee entente mën a am bu ñu ko defee ci un an une année je te dis dootoo déggati problème yu bëri entre ay police ak population ay bavure policière yooyu dafay jeex di nga réeroo amul ñàkk waxtaan am Sénégal du rew mo xamni da ngay ñew di telli telli ni di rajax rajax non non Sénégal rew waxtaan la mag ñi ko sos ci waxtaan lañ ko tek lool moy Sénégal. proposé comme solution rek pour jeexal. moy lima la mujjé wax qu'on organise des journées de sensibilisation des thé débats dans chaque région ici au Sénégal on a 14 régions région bu ci nekk amna ay département département bu ci ne il ay commune communes, ay maire maire yoy ñoo jug tak des représentants du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur est ñoo des représentants. Il représentants a des maire yek notable quartier présents à ASC avec les jeunes Nous sommes dans chaque quartier ici au Sénégal Nous koy par 15 jours par un mois Nous avons ko une année là la wax ni problème yi

day wane lool ndax chaque instant c'est le bonheur. monsieur le maire loo wax ci Dakar instant. Wow, c'est une première mais ni ma gisee Dakar instant faut prouver que Dakar instant ci kanam la jëm incha allah. gars ñu ngi koy suivre Dakar instant je leen laay wax na gars dem abonné loolu bëgg si actualité ñëw leen si Dakar instant. C'est ce que na trop MashaAllah. allah. Mbacké loo wax ci Dakar instant. Wow, Dakar instant nag moom ñoom dañoo xew.